Ahmed Tidiane Sy ñu bokk jàng benn fatiha juróom-ñetti suuratu Quraysh benn falaqi ak benn naas benn peru salaat al fatih ubbee ko jotaay bi incha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 leen di ziyaara ci bés tedd bi ñu nekk ngir yàlla ki ñu ko séddee muy ki nga xam ni moo di chamsul maarif wal maani ayatun fi lfahmi wa tabliigi saala wa jaala ki nga xam ni moo di damisu sajaya fi lxayaat wa xaatimun yowma saxaa'i yusarribu lamwaala mu di seen maam sayid cheikh ahmed tijani si alqutbu almaktum radiallahu taala anhu ñuy jiital ci nuyoo bi ak ziyaaro bi suñu capitaine sayid cheikh ahmed tijani si di ko ñaanal li ëmb lépp mooy li mu yéene ci kilifaam yal na yàlla defal ko tawfiiq mu mottali ko li ko kilifaam yéene yal na yàlla defal ko tawfiiq mu mottali ko waaye ñu di ko yóbbante suñu nuyoo ak suñuy ziyaara yu ñu ëmbee gën a feddali pas-pas gën a feddali engagement di ko teg ci sa loxo nga tegal ñu ko ci loxo sa góor gu tedd gi as sayid Mouhamadul Moustapha Sy al Mourchid di ñaan yàlla sàmmal ñu ko ci biir di ñaan yàlla sàmmal ñu ko ci biti di ñaan yàlla taxawul ñu ko ci biir di ñaan yàlla taxawul ñu ko ci biti di ziyaara bu baax a baax sa mbokk bopp mi nga dendal di sama patron di Serigne Babacar si moom xam naa li yonent yàlla suleymaan alayhi salaam waxoon te alquran indi ko ndax xam nga yonent yàlla suleymaan dafa waxoon yaa ayuha nnaas ullimna mantiqa tayr wa utiina min kulli shay inna hada lahu alfadlu almubin yonent yàlla suleymaan alayhi salaam dafa waxoon ni teraanga mu ni weesuwul borom bi subhaanahu wa taala mu ni lu muy teralee jàmm rekk teralee nama ko te loolu yonent yàlla suleymaan waxoon alayhi salaam ki ko seede ci seen maam Seyid Cheikh Ahmed Tijani radiallahu taala anhu du jullit taalibe Isa bnu Maryam du nit ku ñuul nit ku weex la ndax dafa dem Paris moom Serigne Cheikh radiallahu taala anhu war fa gise ak benn kilifa kilifa gi di présenté am ku koy présenté Serigne Cheikh mi mu war a recevoir mooy kan di ko wax ci parcours Serigne Cheikh ak ay jaar-jaaram ba ci yàgg ni ko daal ki ngay resevoir en un mot c'est l'homme que Dieu tout donné moo tax nga gis bi ko Mouhamad Ali di wax in rumta nadban شاعرا متأدبا تلقى الجبين سميت عن مفضالا فعليك بشيخ التجاني جمع المسائل لا يرد سؤالا mu mel na nag moom Sayid Cheikh Ahmed Tijani radiallahu taala anhu mel na ni moom la ñuy fàttaliku ci bés bi nga xam ni wax nañ ni ixtaara moom tam inda al mawti ala rafiq nga xam ni bés la boo xam ni dañuy wax ni am na lu ci daje kenn na dem waaye yóbbaale ñett maata al muallim wal murabbi fannada waaye wal ilmu qawmi aadana tarxaala waaye nag ñun ñu gëm ni wama mata maytun ngir yàlla ki mu ñu fi bàyyil mu di suñu kilifa Seyd Mouhamadul Moustapha te wal Moustapha in shabahat afaaluhu afaala walidihi fa laysa bi zalimi mu mel na nag moom Seyyid Cheikh Ahmed Tijane si radiallahu taala anhu ku koy fàttaliku mënuloo génn njàngaleem moo tax daaw bi ñu fi dajee góor gi joxe woon ndigal wax ni nañu xool lenn ci ay mbindam ñu génne ko waxtaane ko mag suñu capitaine Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy ren it mu joxe waat ndigal wax ni bés bi nañu ko jëmmal waaye mu jox suñu capitaine ndigal Sayid Cheikh Ahmed Tijani ci mu jëmmal ko te xool nu ma ko organiser moo tax Sayid Cheikh Ahmed Tijani ni woon nañu jukki lenn ci ay waxtaanam moom Sayid Cheikh Ahmed Tijani turandoom radiallahu taala anhu ànd koog suñu wayjuru daara yile imam Samba Diop oustad Babacar Diop ak suñu mbokku daara yi Seyid Mouhamad Ndiaye Seyid Ismail Kanji maamu waxoon rek ne nañu jël leen nag ci ay kàddu Serigne Cheikh suñu paree rek macha allahu ah ñoom ñoo ànd kook ñoom ñu xool lan lañ ñu ci mën a génneel ci wàllu enseignement bi ak li ci nekk ci wàllu profondeur xam naa kon nag incha allahu ah ñi nekk ci technique bi ah bu ñu noppee rek ñu tàmbali suñu paree kàddu gi ñu xool nuñ introduire suñu wayjur ak suñu mbokk yi bismillah